Bilal kita coffee walking out xol di ñëw ci man del bon de kawana sa filin sa jikko yiw na sa jëmm ji man du ma ci dayal yu ma ma ne lu muy bëgg a def xale bi lu mu naan lu muy bëgg a def xale bi lu mu naan lu muy bëgg a def waaye na xajee bu mu àndal ba muy dikk xolal doomi dayam de la àndal ba muy dikk yow dama ne xale bi lu mu naan nan bàyyi ban maye ba pare waaw nan bàyyi ban maye ba pare nga génnaat ndànk duggaat defaat ko nii.